ñu ñaan ko moom buur bi yàlla tabaraka wa taala mu may ñu kendaluk jàmm ndax jàmm jiñ koy ñaan moom ndong moo ko yore ci moom la nekk moo koy joxe te ci moom ndong lañ ko war a ñaan kon noo ngi ni gannaaw bu ñu joxee waxtu yu julli suba di waxtu yu fajar di njëlbeenu waxtu ba ñuy rencontre suñu boroom mu di audience bu noobul bi nga xamante ne amul benn audience ba doomu aadama bi di rencontre ak keneen lu ëpp audience bi valeur lañ fa nekkee yan nañu ko yàlla nangul nañ ko defee yan nañu ko yàlla nangul waaye lépp lañ ko ñaan ci audience boobu di julli yan nañu ko buur yàlla defal amin ya rabbal alamin ba tax na moom lañ koy ñaan di ko ne allahumma anta salaamun wa minka salaam ilayka yaudu salaam fa xayyina bisalaam wadxilna aljannata daaraka daaru salaam amin ya rabbal alamin ndax jàmm mooy la xamante ne mooy la gën fii ak feeñuy jëm maam borom tuuba rahimahullahu taala rahmatan waasia ñu ne daf ne gisul lu gën ëpp jàmm fii ñu nekk ci àddina ak fa ñuy jëm di ëllëg bés pénc kon ñu nit ñu ngi naan buur yàlla yow mi yore jàmm mboolem xeetu yiw yi ci sa loxo la ñu nekk ñu la koy ñaan yàlla nga ñu ko dottil suñu réew yàlla nga ñu may jàmm suñu réew yàlla nga ñu jàmmal yàlla nga ñu dundal ci jàmm bu ñuy taxale ko dund bi yàlla ñu fekk ci jàmm waaye anam bu ñuy dajeek yow yan na doon na mu gën a nekkee jàmm waaye keroog bés pénc ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu wóor sëgal tàbbil ñu këru jàmm ba nekk fa yow te mooy arjann amin ya rabbal alamin mbokk yi xam ngeen ne buur yàlla daf ñu ne uduuni astajib lakum ñaan leen ma ma leen ud'uuni astajib lakum woo leen ma ma wuyu leen ud'uuni wax leen ma seeni soxla la lakum ma fajal leen ko kon am na loo xamante ne ëpp na doomu aadama di ko bañ a def digganteem ak boromam subhaanahu wa taala doomu aadama ngay ñaan tey mu jox la suba nga ñaan ko talal ko say yoxo mu jox la ginnaaw suba nga ñaan ko mu jox la waaye ñetteelu fan bi walla ñeenteelu fan wi bu la seeni sax danaan gaayam yi ne ne leen ko nekkuma fi yàlla du kiy daw jaamam ba soxla ca moom ngir mu di ko ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañ ñu ne ci maana xadis ne ñu yéen mboolem jinne yëg doomu aadama yi ñu njëkk ñeeg ñu mujj yi bu dee da ngeen dajaloo ci benn béréb ngeen tàllal seen loxo seen boroom di ko ñaan kenn ku nekk ci yenn yàlla dina ko may la mu ñaan bem ko may sax lam ko ñaanut te du jilee dara ci nguuram daa mel ni rekk bu fa naree jëlee dara tamit daa mel ni yow mi jël puso tabil ko ci géej tokk ndox bay des ci puso bi loolu mooy lay jóge ko ci magasin xéewalu yàlla ba nekk fa moom bu dee mënees nañ kaa misaale nii kon ñaan yàlla daa war jullit bi waaw ndax am na loo xamante ne du kenn moo la ko mën a defal ko dut borom bi subhaanahu wa taala ndax ci moom la nekk kon boo koy sàkku nang ko sàkku fa moom ba tax na ñu nit ñu ngi koy ñaan lañ ko ñaan nii yan ñu ko buur yàlla defal amin ya rabbal alamin mbokk yi yan na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot Rewmi FM 97.5 ñu ngi leen di fàttali ne mooy rajo bay ànd ak yéen ci waxtu wi ñu di wéttalanteeg mbokku téléspectateurs yi wala mbokku auditeurs yi fu ngeen mun ti nekk fii masharikil ardi wa magharibiha nañ leen bokk saa ne di ñaan yàlla la nga xamante ne ci moom dong lañ ko mën a ñaane yal nañu ko yàlla defal yal nañu ko yàlla may amin ya rabbal alamin bokk na ba léegi yonent bi wax nañu ne ci maana hadis man lam yasalillaha yaghdab nee na buur yàlla def ne képp ku ma ñaan dama kay mere lii yenentu bi sala sala moo ñu ko wax kon yàlla donga am sañ-sañ wax ne sama jaam bi bu ma ñaan dama kay mere subhaanahu wa taala ba tax na jëlee nañ xadis bi ci saxaabi bi ñu naan abi hurayrata radiyallahu anhu an nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal yadxulu ljannata aqwaaman afidatuhum mislu afidata tayr sallallahu alayhi wa sallam dina dugg arjana ay xeet ñu nga xamante ne yàlla ni mu bindee seen gémmiñ daa mel ni gémmiñu picc moo ne gémmiñu picc na mu mel ku dem xool gémmiñu picc dinga gis la yonent bi tegtal ay jëmm yuy dugg àjjana te seen gémmiñ yaa ngi mel ni gémmiñu picc bu ñu gémmiñu picc ci tuutiwaay bi léegi ñu mun a comprendre commentaire boobu ci maana xadis bi waaye commentaire bi gën naa war a mën a yaatu par ak gémmiñu picc nu mu tuutee buñ ne gémmiñu picc ci ni picc di sàbbale yàlla ñu mën a comprendre maanaa xadis bi ci commentaire bañ ko war a mën a jox waaye bi léegi war nañoo war a mën a comprendre ci commentaire ci maanaa xadis bi ñu ne gémmiñu picc dara lu ñaaw dara lu bon dara lu salte du fa dugg ba tax na sax am na xeet ya cax ci seen euh, wax ci seeni kàddu ñu ne picc de du tàbbil sax bay rey doomam waaw du tàbbil gémmiñu doomam sax ba kay rey picc mën naa may doomam lu ne mu lekk ko waaye sax bay dagg butitam de du ko sexal doomam kon ndegem picc moo du sexal doomam sax ba kay lor kon yow nga déggee ci maanaa xadis bi ngalawaay boo xëyee di uti bul faggu lay def tooke ci sa biir njaboot bu leen andil riba bu andil la nga ger ci béréb yañ la teg nga nangu ger corruption nga ger nit ñi wala nit ñi ger la nga dajale loolu di ko yóbbul say waa kër yonentu bi ne déedéet bul mel noonu ba tax na képp ku melut noonu anamu yiw ngay taxawee ci pénc bi kon moo tax mu ne ñoo yadxulul jannata dinañu dugg arjanna aqwaamun aw xeet ay nit ñi nga xamante ne afidatuhum seen gémmiñ yeeg seen xol mislu af idata tayir daa mel ni gémmiñu picc walla xolu picc waaw xolu picc dañoo nooy xolu picc dafa nooy gémmiñu picc du fa dugal lépp lu ñaaw wala lépp lu bon walla lépp lu koy déranger wala luy déranger njabootam kon yow mi ñuy déglu ci waxtaanu fajar fii ci réew FM 97.5 ñoo ngi tollu ci waxtu xëy dem kër-këri dem fàggu la yóbbul suñuy njaboot ngel la kenn ku nekk ci ñun na xool fàggu ba muy fàggu mu di ko yóbbul njabootam ana lu muy doon mu bañ a doon tooke ba ngay yóbbul say njaboot walla mu bañ a doon poson bi nga xamante ni danga koy jox say njaboot nanga am xolu yërmande ci nit ñi waaye na nga nangoo faggu lu baax la ngay tàbbil sa gémmiñ ak lu baax la ngay tàbbil sa gémmiñu njaboot noonu la ñuy déggee maanaa xadis bi su ko defee jëmm ji koy faggu mu suuraale yàlla ci faggu téef ba muy faggu dund ba muy faggu ngir mu yóbbul ko njabootam su ko defee mu doon jëmm ju mucc ayib mu doon jëmm ju sell ba tax na yonentu bi ne dinañu dugg arjanna aw xeet ñoo xamante ne seen gémmiñ wala seen xol yi daa mel ni xolu picc wala seen gémmiñ yi daa mel ni gémmiñu picc képp ku dem vérifier na picc du dundee dinga xam ni picc dundul dara lu métti dundul dara lu salte dundul dara li nga xamante ne da koy xajamal wala day xajamal njabootam kon ba léegi sallallahu alayhi wa ma suñuy mag ñi tànn ñu ne ren te mu waxtaan ba ñu doon waxtaanee gane si àddina ba mu gane si àddina ñu ne thème bi ren mooy maqaarimal axlaaq mooy jikko yu rafet mooy jikko yu baax kon bés bu yàlla sàkk Rewmi FM 97.5 ñu nit dinañu góor góorlu jukki leen lenn ci jikko ju baax jikko yu rafet jikko ya yàlla tàggee yenentu bi salaa sallam ci alquran ñu àndal leen ko ci waxtaanu fajar ñu nar ko wéttalanteeg mbokku auditeurs yi fii ci Rewmi FM 97.5 fu waay munti nekk noo ngi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala yal na yàlla may dégg ak topp amin ya rabbal alamin mbokk yi ñaareelu xadis bañ leen bëgg a jàngal ci waxtaanu fajar da ngeen ànd ñun fii ci daara ji Rewmi FM 97.5 mooy an Anas bun Malik radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man sa'ala allahu aljannata thalaatha marratin qaalat jannatu allahumma adxuluhu aljanna wa man istajaara min annaari thalaatha marrat qaalat annaar allahumma ajirhu minan naar rawahu tirmisi mbokk yi sang bi de ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa mooy yenente ba nga xamante ne lépp lu ko yàlla xamal ca luy njëriñ xeetam wax nañ ñu ko leeral nañ ñu ko ba mu leer nañ waaye lépp lu buur yàlla xamal loo xamante ne day lor xeet wi leeral nañ loolu tamit ba mu leer nañ samaan wa taa moo fi nekk wala samiana wa asayna moo fi nekk dégg nañu dinañ ko topp moo fi nekk walla dégg nañu ñoo lank duñ ko def moo fi nekk ñaari benn moo fi nekk dégg topp walla lank bañ kaa topp waaw waaye yal nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne dañuy dégg te dañuy topp lañu dégg ci yonent bi sallallahu wa sallam mbokk yi saxaabi bi di anas radiallahu anhu nee na anas bun malik nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu ne man saala allahu aljannata salaasa marrat képp ku ñaan yàlla ma yàlla tàbbil kiru xéwal ba nekk fa moom di àjjan ñetti yoon qaalat aljanna allahumma adxuluhu aljanna nee na arjana danaan yàlla nga dugal jaam bi ca arjana waaye yonent bi nee na wa man istijaara min an naari salaasa marrat képp ku ñaan yàlla mu musal ko ca safara ñetti yoon qaalat innaar allahuma ajirhu min an naar na safara danaan yàlla nga musal sa jaam bi ci safara rawahu tirmisi tirmisi moo solo xadis bi mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ñu bokk déggee ci maanaa xadis bi maanaa bu yaatu te xóot waaye ñu tënk ko rekk ci taaliqaat ci ay commentaire yu gàtt yañu war a mën a andi ci waxtu su néew yañ ñu ci waxtu wi sallallahu alayhi daf ne man saala allah aljannata salaasa marraat képp ku ñaan yàlla at janna ñetti yoon moo xam danga nga ne allahumma duxulni l janna allahumma duxulni l janna allahumma duxulni l moo xam da nga naan yan na ma yàlla dugal arjanna yan na ma yàlla dugal arjanna yan na ma dugal arjanna ba mu doon ñetti yoon qaalat il jannatu allahumma adxuluhu l jannata yenentu bi nee na arjanna danaan nga dugal sa jaam bi arjanna ba mu lay ñaan nii waaye yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bi léegi wa man istijaara min annaari thalaatha marat képp ku muslu ci safara ñetti yoon nga muslu fa yàlla mu musal la ci safara nga wax ko ba mu doon ñetti yoon masalan nga ne allahumma inni astajiiruka min annaar allahumma inni astajiiruka min annaar allahumma inni astajiiruka min annaar allahumma ajirni min annaar allahumma ajirni min annaar ñaari format loo ci mën a wax mooy yàlla ma lay ñaan yàlla nga ma musal ca safara yàlla ma lay ñaan yàlla nga ma musal ca safara yàlla ma lay ñaan yàlla nga ma musal ca safara yonent bi ne képp ku muslu ci safara ñetti yoon qaalati naar safara day wax naan allahumma bur yàlla ajirhu min an naar yàlla nga ko musal ca safara kon bi léegi ñu déggee ci maanaa bi bur yàlla subhaanahu wa da di buur bi nga xamante ne day bëgg à chaque fois jullit bi di ko ñaan la nga xamante ne munu koo amee ci keneen munu koo ame feneen walla ci neneen kudut fa moom yàlla ndax arjanna yàllaa ka moom moo fay dugal ku ko soob ñaan ko mu boole la ci ñu muy tabbil arjanna safara ci moomeelu yàlla la nekk ñaan ko mu musal la ci safara ndax képp ku mu dugal arjana ci moom la neex ci coobareem la amee waaye képp ku mu xañ ci àjjana mu tàbbil la safara ci coobareem la nekk ci moomelam la nekk ci nammelam la koy defee tamit kon yow jullit bi luy sa róor del ñaan yàlla mu may la nga bokk ci ñamuy wërsëgal yërëm leen tàbbil leen kir xéwal ba nekk fa moom di arjan waaye na nga saxoo di ko ñaan mu musal la ci këru mbugal ba nekk fa moom di safara kon ñu nit ñu ngi koy ñaan di ko ne bur yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu may nga boole ñu ña ngay wërsëgal ñu tàbbi kiru xéewal ba nekk fa yow di arjan yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu boole ci waa arjan yàlla nga ñu wërsëgal may ñu ëllëg bis pinc nga boole ñu ñu nga wërsëgal ngir ñu dugg arjan kon yàlla ñu ngi lay ñaan ba léegi yàlla nga ñu musal ci safara yàlla nga ñu musal ci ñanga nga àtte ci sa namel ak sa coobare ñu war a tabbi këru mbugal ba nekk fa di safara yàlla nga ñu musal ci safara amin ya rabbal alamin mbokk yi yenn jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot bokk na bi léegi ci xadis ba nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko baaxee xeet wi melokaanu way gëm yàlla ñi ñoomi neen seen diggante seeni biir ana wan comportement la ñu war a comporté woo waaye ana wan comportement la ñu war a mën a nekkee ana nañu war a jëflante ñoomi neen képp ku bëgg xam la yonent bi wax société jullit ñi nu ñu war a comporté woo mais ñu nopp ci réew mi FM 97.5 ñu wéttalante ki yow ci la yenentu bi ne fi tawaadihim wa tarahumihim wa taatufihim matalul jasad ida staqaa minhu ladow tadaa lahu saairu l jasad bilsahari walxumma saxiixul muslim mbokk yi yenn jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ka yàlla yónni ci xeet bi di ar rasulul mustapha alayhi afdalu salaatu wa azka taslima yàlla ñu ko yàlla fayal sallallahu alayhi wa sallam ndegem suñu kilifa yi ren tem ba tànn ne loolu moo war a nekk te mu sababu gane si àddina yonent bi mooy makaarimal axlaaq buñ ne makaarimal axlaaq ñu ne mooy jikko ba yàlla taggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñu baaxee lenn ci jikko yooyu bokk na ci société muslima ana nañu war a mën a comporté woo ana yan comportement la ñu war a comporté woo ba tax na yonent bi mu nañu ci xadis bi masalul muminina fi tawaadihim melokaanu way gëm yàlla ñi melokaanu jullit ñi ci seen nangulante kenn ku nekk di nangul sa moroom watarahumihim ak yërmande ba ñuy ëmbal kenn ku nekk nga ëmbal sa moroom yërmande kenn ku nekk nga yéene sa moroom yërmande wataatufihim ak kenn ku nekk na muy nangulee nooy ci kanamu moroomam yonent bi nee melokaan woowu mu ngi mel ni masalul jëset nee na comportement yamaleen woon nii nooy yërmande nangulante ba jullit ñi di installé ci seeni biir ñoomi neen day mel ni jëmmu yaram jëmmu yaram ni muy mel mbokk yi yonent bi nee na isastaka minhu adow ab cër bu amee tolof-tolof wala mu metti dangay gis ne tadaa lahu saairul jasadi bil sahri wal xumma yenentu bi sallallahu alayhi wa nee na cër boobu am jafe-jafe métit da koy transmettre yeneen cër yeneen organes ci jëmm ji bu dee yaram bu tàng boo loxo bi day tàng boo laalee bopp bi day tàng boo laalee dënn bi day tàng boo laalee diggi ginnaaw bi day tàng boo laalee tànk bi day tàng foo laal ci yaramu jëmm jooju tàngoor ngay sentir ne moo fi manifester ba tax na tànk bi day nangoo jóg dox yóbbu jëmm ji ci kër doktoor waaye gémmiñ bi mooy nangu wax la ko fi tax a andi waaye dinga gis ne loxo bi mooy nangoo loxo bi mooy nangoo dugg ci poos bi génnee la muy jëndee ticket walla la muy jëndee garab waaye bët bi mooy niital jëmm ji muy dox ba mu àgg ci kër doktoor te du faxastalu du mbëkku du réer kon ndegem jëmm yaramu doomu aadama ñoo fi nekk di am solidarité bi ni mel nii ñuy nangu di accompagner yaram bi nga xamante ne moo am tolof-tolof lu mel ni bëñ buy métti bëñ bi moo ne ci biir gémmiñ bi la nekk de bëñ boobu moo am tolof-tolof mooy métti waaye tànk sañ naa dox yóbbu yaram bi kër doktoor bët sañ naa xool yoon wi ngir niital ko ngir tànk bi mën a xam fu muy tege loxo sañ naa dugg ci poos génne xaalis jënd garab walla mu jënd tikki te moo ne bëñ mooy métti de waaye lu tax yeneen organes yi accompagner jëmm ji ngir ñu yóbbu bëñ mu dem faju nii la yonent bi ne yi jullit ñi lii lañu war a toogee nii lañu war a comporté wo bu fekkente ne ñun ñu ngi comporté woo nii kon nañ leen sant yàlla ci xéewal boobu fa lillahi alhamdu wal minna waaye bu dee deet comporté wu ñu woo nii kon nañ leen jël xadis yenent bi ñu andi ko ci suñu société ñu andi ko ci suñu dund su ko defee ñu tegu ci yoon wa nga xamante ne fa la ñu yenent bi xàllil sallallahu alayhi wa sallam ndax moom lañu yàlla wax ne wa in tutiuhu bu ngeen ko royee wa in tutiuhu bu ngeen ko toppee wa in tutiuhu bu ngeen ko dégloo xeñtu lam leen xàllil fam leen jaarloo du di ngeen gindeeku di ngeen orienté wu kon orientation bu baax orientation bu jekk orientation jeune du ci fenn du ci kenn ku du topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam orientation père de famille du ci kenn du ci fenn du ci leneen lu dul ci topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam orientation sama sœur wala soxna si du ci kenn du ci fenn fu dul topp yonent bi sallallahu alayhi wa waaye orientation employé bi du ci kenn du ci feneen foo ko war a mën a sàkku fu dul fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu déggee ci ne orientation patron bi orientation chef d'entreprise bi orientation kilifa bi du ci kenn du ci feneen du fenn tamit fu du topp yonent bi sallallahu alayhi wa ndax menn moom la yàlla wax ne wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yónni bu ma la nag du lenn du dara lu dul nga doon yërmande ñeel mboolem mbindaafooni sallallahu alayhi wa sallam yërmande boobu noonu nag moo tax mu andil ñu melokaanu way gëm yàlla ñi ci société musulma mu ne ñu melokaanu way gëm yàlla ñi ci nañuy nangulante kenn ku nekk di nangul sa moroom kenn ku nekk ëmbal yërmande ak cofeel jimmali ko sa moroom waaye kenn ku nekk nangoo nooy ci kanamu sa nawle nee na melokaan boobu daal dafa mel ni jëmm nga xamante ne yaram la waaw jëmm yaramu doomu aadama na tànk bi nangulee yóbbu bëñ buy mitti ci kiru doktoor bët nangu ko xoolal yoon wi ngir mu bañ a joggi la koy lor walla muy mbëkk ah loxo tamit nangoo dugg ci poos génne la muy jëndee garab ngir bëñ bi wir organe yooyu nu ñu nangoo accompagner bëñ ngir mu wir bu dee société jullit ñi kenn ku nekk nii la war a taxawee yonent bi nee na kon société boobu day doon société yu mucc ayib ndax bu ñu xoolee organes yi ñoo bokk solidarité jógandoor kenn ku nekk nangul sa morom kenn ku nekk nangul jouer rôle pour buñ wir bu dee société jullit ñi kenn ku nekk day jouer rôle ngir ayib bay waaja a daj kenn ci askan bi mu jóg gàttandu ko ni kon li ñuy dund nii tey duñ ko dund ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala la xadis bi di wundu la xadis bi di tekki yan nañu ko yàlla man loo ñu di ko jëfe waaye yal nañu yàlla may wërsëg ñu dégg ko ñu nar ko andi suñu dund ñu di ko dund ci zaahir ak ci baatin nasaluka allahumma an tajcalana min allazina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsana mbokk yi waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a joxe xibaar ñu ngi ni taxaw ñu war lañ jibbal béréb bi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala moomee ñu dégg ak topp amin ya rabbal alamin allahumma ya rabbi ati nufuusanaa taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'man nasir allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih allahumma a'immatana wa wulata umuurina allahumma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'aani alazim wa nafaani llahu wa iyaakum bima fihi min al ayaati wa dikri al hakim aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llaha lii wa lakum min kulli dambin fastaghfiruh innahu huwa al ghafuru rahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu